gis ngeen troubu caada national euh, prestation vraiment bu bu rafet bi ñu def euh, ak euh, gis ngeen tam faamu ndaw rabin yi prestation bu rafet bi ñu def fii place Mamadou Diop ci Yoff donc carnaval bi ren partenariat lañ am ak commune de Yoff donc loolu maa ngi ci remercier vraiment le maire pour implication bi mu am ak euh, engagement bi mu def dugal ci équipe am yi euh, vraiment ñoom ñëpp ñu jàpp si euh, pour que commune de Yoff mun a aussi accueillir événement boo xamante ne dafay dem ba bitim réew mun a wane aada ak cosaanam ak voilà mun a attirer tamit ak ay touristes. donc loolu lu bees la ci ci carnaval bi mooy diffuser ay films donc ren Moussa Touré filmam bi tudd La Pirogue. Euh, bi wax waxu euh, xale yi di jël gaal yi di dem euh, donc boobu moom la ñuy projeté ak film Ababacar Samb Maharam buy wax waxu jom effectivement ñaari thèmes yooyu yëpp dañu méngoo ak actualité bi donc moo tax donc ñu choisir ko pour diffuser ko ren ci carnaval bi. ku wax carnaval wax parade donc parade mooy li ngay wax rek ku nekk day ñëw collinam indi instrument de musique am. ah ay fecc yi euh, indi masque yi tamit euh, gis ngeen simb yi sànq mais ñoom ñëpp dinañ dellu si euh, ci parade bi parce que loolu dafay permettre tamit public bi ñi dëkk ci commune bi ak ñi jóge ci yeneen communes yi di ñëw di seetaan ñu mun a xam parce que am na ñoo xamante ne xamuñu ko amatul léegi dakaar dafa daan am ay événement yu ndaw yu doon xew ci ci quartier yi ci gox yi donc léegi ñun loolu lañ bëgg contribuer aussi indiwaat ko Euh, mais tourné ko ci aada ak cosaan donc moom la ñuy euh, def euh, nii ren. gis nga ne tey sos nañu tàmbalik ñeenteelu at ci li ñuy oowe carnaval bu dakaar di ay bëccëg yoo xam ne dañ ci delloo njukkal cosaan ak aada delloo si waat li fi mag ñi bàyyi woon ci wàllu colin ci wàllu waxin ci wàllu doxalin ba noppiit am loo xamante ne moom la ñuy oowee cinéma daanaka saxoon na ci réew mi waaye dafa dellu ginnaaw lool lool lool. waaye ñaari film yi nga xamante ne tey moom la ñuy projeté muy euh, La Pirogue bu Moussa Touré muy wax ci wàllu ñiy jël géej gi di dem bitim réew di ko jaare foofu ak it wàllu jom bu Ababacar ma xaram mu jugee ci loolu it euh, suba dinañu dem ci wàllu parade de cultures donc moo xam ne loo xam ne lu ndaw ñi di wane seen cosaan ak seen aada la ak mag ñeeg jigéen ñi ginnaaw suba ñu dem ci li ñuy wax euh, rawante gaal regaat donc loolu it dina ànd ak ndaw raab bin te ñu ngi koy defee ci tefesab Yoof donc loolu day wane ne mairie yoof ci li ko état bi dénk ci domaine de compétence transfert ñu ngi ciy góorgóorlu ba def cosaan ak aada wéeruwaay boo xam ne dina mën a tax Yoff mën a jëm ca kanam ndaw ñi am ay bunt ak ay yoon yoo xam ne ñu ci jaaree incha allahu rabbi dinañ mën a bokk ci ñuy tabax seen réew. loolu ak fàttali la ci xale yi na mag ñi taxawee woon démb ci am jom ba tuur seen deret pour tey ñu mën a am jàmm damay fàttali ne yoof ci wàllu département bu Dakar mooy dëkkuwaay bi njëkk ndax ñu ngi ko sos ci 1432. donc tey baax na ndaw ñi xam seen démb xam seen tey waajal seen ëllëg bu baax donc li tubaab di wax enracinement et ouverture donc tey dinañ dellu euh, ci wàllu cosaan ndax rab wax dëgg yàlla am na ñu ne Afrique la soso dem ba États-Unis te nañ ko daan defee ca lañ ko sosee moom la ñuy tey defaat fii ci yoof du nekk concert mais lu nit ñi di dajaloolu di déglu mu mel ni taasu parce que rab taasu la tàmbalee donc loolu yëpp tey dinañ ko yëkkatiwaat fii ci Yoff muy mbégte nag bu rëy te di wax ne carnaval bi ñëw na fi ba pare muy lu ñu neex mais dinañ fexe ba du duñu rëcc ndax ren am na fi déwén bu amaat fi ndax mën a yëkkatiwaat dekkalaat cosaan buñ noppee nag ah bi mën a demal boppam bu carnaval bi it buñ mënee ñëwaat dooleel ñu at yi di ñëw mu nekk un contrat à durée ah ñu nangu ko rek liggéey ci liggéey bu mucc ay boo xam ne dina delloo njukkal cosaan ak aada ci réew mi en tout cas ñun gëm nañu cosaan ak aada te dinañ xar suñu tànk tubéy pour mu mën a sampwaat bu baax fi ci Yoff